di leen wax asalaamaaleykum wa rahmatullah yal na yàlla di sotti jàmm ci yéen sotti ko ci adduna bi yëpp di ñoo fi fekk ñaab ci groupe gi macha allah di leen ñaanal jàmm euh, ñaan yàlla yal na yàlla dëgëral ñu suñu imaan yàlla dund ñu si lislaam rey ñu ci imaan dekk ñu ci imaan att ñu yal na yàlla defal ñu sutura adduna ak àllaaxira ñu ñaan yàlla. yal na yàlla dëgëruñu suñu imaan bi yal nañu yàlla teel ñaan yàlla lépp loo xamante ne mi ngi ci àdduna bi di dox te neexul yàlla yàlla xam na ko metti na ko e bu ko neexee mu jëlee ko fi waaye yal na ko fi yàlla jëlee ci jikko yu bon yeeg e taxawaay yu taxaw yoo xamante ne bokkul ci diine yàlla bëgg ko digalu ko yonent bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bëgg kon nag ñu ngi ñaan yàlla loolu yal ñu ko fi yàlla jëlee. yal na suñu njaboot mucc ci eh, ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa di ziarewaat ñëpp rek bàyyi wuñu kenn eh, daara ji soxna Adama maam Malick Alpha ñëng ñoom Hawa ñoom Assu ñoom Malamin macha allah wuñu kenn yàlla yàlla sotti njëggal suñu ajur boobu Seydina Aliyun mbokki jullit yi eh, tey ñu ñaan yàlla na ko yàlla nangu lépp luñ ci ñaan yàlla na ko yàlla nangu lu ci waay ñaan rek ci lu baax yàlla ko yàlla nangu bu dee loo xamante ne macha allah e, lu ñuy musul la yàlla ci yàlla musal waaye mbokk yi suñu waxtaan bi passé yaakaaroon naa ne ñu ngi duggoon ci li nga xamante ne moom mooy wàllu feet feet yooyu ku ne waxoon nañ ne ñun ñu moom feet yu ñu moom yi mooy feetu jullit waxoon nañ ko yooyu la ñu war a sàmm yooyu la ñu war a jàpp e leneen li <clears throat> mooy li nga xam ne tey jii nañ ci dugg mooy ñaan yi ngi doon def ñaan yooyu ñu ngi fi ba léegi waaye macha allah am na ci yoo xamante ne dañ e, ci gën a dugg tey muy yoo xamante ne jaar na fi nga gis ci jullit ñi et niñ ciy taxawoo niñ ciy farloo e ak seeni njaboot di ko won seeni njaboot mu nekk loo xam ne ëllëg mën na leen jural bàkkaar waaw ndax yàlla borom bi subhaanahu mu bind doomu aadama créé adunaam bii jël asamaan si tabax ko jël suuf si tabax jël suuf si lal ko macha allah di wàccee tawam di muy tàng di sedd di poussière loolu kenn dafa ko dul borom bi subhanahu wa taala moom moomu nag bu demee ba wax ne lii bàyyi leen ko baaxul bëgguma lii la am solo mooy jullit bi na ko bàyyi na ko bàyyi moo gën mooy lan te waxtaan bi ñu ngi koy tuddee yàq sa alal yàq sa wërsëg maanaam yàq sa alal loolu la ñu tuddee waxtaan bi tey ku ko doon defit bàyyi ko nga xam ne yàlla diglewu ko waaw yàlla ngi wax ne auzu billahi min ashaytani rajim bismillahi arrahmani irrahim bii may wax ku ko yàgg jàng nga xam ne muy tekki ah ku ko xamul nga xam ne lii ci yàlla di wax suuratu takasur alhaakumu takasur حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم صدق الله العظيم waaw yàlla borom bi subhaanahu wa taala waxoon kulu washrabu wala tushrifu kon moom yàqu bëgg ko xoolal borom bi subhaanahu wa wax foofu borom bi subhaanahu wa taala nee na maa ngi leen di moytuloo te atakaasuru dégg nga ëppalante alal waaw maa ngi leen di moytuloo ëppalante alal maa la ëppale lii maa la ëppale booy dee bàyyi ko fi maa leen koy moytuloo de baaxul ci de waaw fii ngeen di toog nag naan samay biens yi samay millions yi samay nangam yi samay nangam yi hatta zurtumul maqaabira ba ngeen dem wuyu ji nag dugg ci biir xabru yi ba ngeen yurndu ji bàmmeel waaw koo ci gis rek loolu lay wax am naa lii maa la ëppale lii man li moom amoo ko waaw te yow yëpp ngay wax sax boo seetloo du ñaqoo ko ñaqoo ko waaw boo seetloo ko nga nekk fi loolu rek moo la yitteel nee na nag léegi nag nga nekk fi nag yi nga am yëpp demoo ci def lu neex yàlla ba nga yóru ji bàmmel waaw soo ñëwee fii nag ci bàmmel ah kallaa sawfa taalamuuna de waaw di nga xam ne ne soo <laughs> sawfa taalamuuna naa la xamal lan mooy biir bàmmel lan moo fi ne fii de li fi nekk de moom mooy lan ay sax yoo xam ne boo fi duggee dinañ la lekk bammel mooy kër goo xamante ne këru lëndëm la waaye kër gu wet la moo tax mu ne ko kallaa sawfa ta'lamuun mu ne naa xamal de waaw xamal lii ne ci biir bàmmeel maa la koy xamal de maintenant nag la fa am moo tax ëppalante alal moytu ko su ma kallaa sawfa ta'lamuun mu toppaat ndeysaan ne topp encore naa la xamal de ma koy bamtu rek ndeysaan allah pour nga bañ a xam ne yàlla benn yoon rek la ko wax waaw. kallaa ne ne ilmal yaqiin dinaa la ko xamal ci xel xam-xam bu wér. xam bu dëggu ilmal yaqin xam-xam bu dëggu laa la koy xamale malaaka yi ñëw laaj la ñaari malaaka yi ñuy wax dinañ la laaj de ma nga ca biir bàmmeel waaw boo ñëwee ba xam ne dugal nañ la fa yow kese nga des fa nga wéet fa baytul xurba baytul duut boobu allahu akbar baytul zulma waaw allahu akbar waaw plante àla raay ba tey ñu ne la farat yóbbul fi ngay dee sax xamoo nee nag bu boobaa nag alal ji boo ci deful woon lu neexul yàlla yàlla waxoon ne boo amee dimbaleel ñu amul te bul gis sa bopp bul naagu lool laa la wax yow mi am dimbaleel ko amul lool laa la wax bul xaar mu ñëw nga di ko dimbale dimbaleel ko amul nee na nag bu boobaa boo ko deful la tarawun nal jahim naa la woon safara soo génnee bàmmeel wala balaa ngay génn bàmmeel du may commencé ñëw ci yow naa la woon safara de naa la woon ajjana wala safara naa la woon safara waaw summa la tarawunnaha aynal yaqin naa la ko xamal de waaw ci xam-xam bu dëgg laa la koy xamale waaw dëgg laa la koy xamale waaye nag gis nga mbokk yi fii la mbir mi ne moo tax yàq sa baaxul oto tax seetloo yii ñuy wax feet yi xoolal bii paas ñun da ngay gis ndeysaan magum jëmm buubu njabootum dugal leen ci oto fan la leen di yóbbu fa nga xamante ne mu fala fala seytaane kër seytaane jënd ay pétard yuy jar kenn xamul nu mu toll yaa ko ñaq amoo looy def lu di won loolu sa njaboot ne ko nañ dem wala ni ñuy yàqee sa wërsëg nii nga koy yàqee ngay taal di tiital nit ña am na ñu feebar ca dëkk ba ca koj ba nga déranger leen chimique bi produit chimique la boo xamante ne ku ko noyyi loo xamante ne tey boo amee fu mu dal sax day lakk mën na lakk nit mën na lakk oto mën na lakk lu yow xalaatoo ci dara nga jàpp benn bés rek e mën na tombe sax àjjuma bisu yàlla nga jël buub sa njaboot ne leen wala su ngeen amee alal nii ngeen koy yàqee nii ngeen koy defee wata yàlla na ne summa la tusalunna yawma izin anin naim ku nekk ci yéen bu ñëwee fii tey dinaa ko won dinaa ko laaj dërëm bi ma ko mayoon fan la ko dugal ba ko waxoon ndax foofu la ko def wala def ko ndax anfiqu mimma razaqnakum la yàlla waxoon waaw yéen ñi ma jox jox leen joxe leen li ma leen wërsëgal joxe leen kon na nga gis nag yi passé nii ëpp yi ñuy jàpp ay bis naan min mi bu jotee rek nga gis dëkk bi di riir te ay jullit yoo xamante ni boo jox ñu naan sama njaboot gi kat dama bëgg ñu xam àdduna ak ah, ñu xam déstressé boo xam nu ñu koy waxee sax dégg nga loolu te jii am na loo ko mënoon defee tey woon nit sax mu leen di waar di leen wax feet yi ñu am di leen wax ci wàllu julli at yaa ngi dem nangam yi nangam mii moo gën foofu nga buub sa njaboot yóbbu leen fi ñuy wax xawma fan la daje foofu fi nit ñi di daje di taal rek tëf tëf boo toogee lu yàgg taal ko ku nekk ku yëgal da nga gis mu tiit ndeysaan afole kon mbokk yi yii mooy yàq sa alal yii mooy yàq sa wërsëg te ëllëg dina yàlla dina ko laaj dërëm boo amoon yàlla nee na su ma la tusaluna yow ma isin anin na dinaa la ko laaj kon nag su ko defee yooyu nañ ci bàyyi xel bu baax yal na yàlla may nu dégg top topp njaboot gi nañ leen woon li nga xamante ne miin noo leen tàmm leen loo xamante ne li fi yent bi bàyyi woon la moo gën ñu koy saxal boo ko doon def nag xamoo ko tuubal waaye saar bi lii la ci yàlla wax fexe ba gis nga summa la tusalunna yawma izin anin naim bis boobu naa leen laaj eh, ana xéewal gi leen joxoon fu ngeen ko dugal yàlla ne nag lekk leen naan leen sax waaye bu leen yàq gis nga kon nag yàq baaxul yàllaa ko dafa araam e, yàq dafa araam kon bàyyi ko moo gën xamal njaboot gi du sorul papa may ma jënd piraan nga ko baaxul loolu yàq sa wërsëg la papa nangam nangam nga ne ko baaxul baloo baaxul yàq sa wërsëg la yàlla daf may laaj ëllëg loolu te yow am lu la njariñ indi wax na ne min xusnil islaamil mar'ita aw tarkuhu maa laa yaani bokk na si luy islaam doomu aadama baay lépp loo ko amal lu njariñ kon axookum imam Hamady Ndiaye Eh, di nuyu waa ñëpp ñuy déglu eh, di leen ziara di leen wax jumaa mubarak eh, yàlla yàlla dafa ñu sutura axiru daawaana alhamdulillahi rabbil alamin axukum imam Mody Ndiaye salaamu aleykum wa